mbokk yi ñu am di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala sunu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëm ne ni saafara ngi réew mi suqaliku réew mi taxaw réew mi yegg ñun ñëpp ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam suñu borom di borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun dara manqué wuñu dara jomb ñu lépp lu doomu aadama aajoo si kaw suuf ngir jëm kanam suñu borom defal nañu ko muy géej ay dex ay déeg suuf su nangu suñu borom defal ñu commune ci biir suuf si commune ci biir ndox mi defal ñu li ëpp solo mooy ay nit yu am xel xel rek koom la saa yu ñu jëlee xelam daas ko naamu ko bës ko sotti ko xelli ko nasal ko xel moom da koy jural njott yiw yoo xam ni njottam mu ne si woon yegg sax lu tax ñun nag ñoom xéwal yi yëpp waaye ba noppi suñu réew mi ñun béggaguñ si béggaguñu si dëkkuwaay lekk ak naan dem ak ñëw mbay napp sàmm euh, wérgu yaram jàng ak jàngale bégguñu tey si wàllum liggéey wàllum mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi bégguñu tey si wàllum kaw gi wàllum taax yi yooyu yëpp tey dafa am i lan moo tax ak lan mooy saafara saa su ne dañuy ami i yoo xam ne dañu fiy dikk ngir loolu ñu indi si ay saafara dañuy demit si ay gox gox yoo xam ne su fa demee fekki doomi réew mi taataan ñoom seen xalaat si réew mi lu koy mën a defar tey ñu ngi yegg ba Daaru Moxti Daaru Moxti di dëkku maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim mi nga xam ni moom e, lépp sëñ Tubaa la woon sëñ Tubaa moo ko jëloon def ko si kàppaaram yaral ko boppam dénk koy doomam dénk ko ginnaawam it bi mu demee géej kooku euh, sanc dëkk bi nga xam ne moom mooy dëkk bi ñu njëkk a sanc si àdduna bi si laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tey nag daaru muxti googu la ñu yegg si euh, di ziar waa daaru yëpp euh, di si jiital xalif bi bàyyi see xadi bàyyi see xadi mbàkke yàlla na ko suñu borom dolli leer dolli ko wér dolli ko taxawaay ñoom sëñ Bass Abdou Khoudous ak sama wëlëre ñoom sëñ Abdou Mbàkke ñoo ñëpp euh, di leen delloo njukkal tey nag sunu euh, jotaay fii ci Daaru Moxti ñu ngi si njëkk ànd ak euh, sëñ Abo Sall sëñ Abo Sall moom borom xam-xam la xam-xamam màcc lool si wàllum wàllum comptabilité waaye it moom doomi dëkk la dëkk bi la ànd si tamit ak sëriñ mbay Guèye sil sëñ Mbaye Guèye Sill moom xam-xam dafa màcc si wàllum démb ñu koy woowee histoire sëñ Abo di nuyu la dalal la ziar. jërëjëf Tunkara ñu ngi lay nuyu bu baax. sëriñ Mbaye Guèye Sill yow Euh, di la nuyu di la daal la ziar. jërëjëf ñu di la delloo nuyoo bi ak ziar bi di sant itam euh, ñi nga xamante ni ñoo am initiative émission bi muy Serigne Abdou Mbacké moom Serigne Cheikh Khady ak directeur u SICAP euh, di président model di Serigne Ibrahima Sall. sëñ Abdou Mbacké ak sëñ Ibrahima Sall yëpp delloo leen njukkal ndax dëgg-dëgg ñoom ñoo bay waar ba tey jotaay bi suñu borom yombal ko sëñ Abdou nag. buñ ko ziyaaree foog ñu ziyaar it soxna Ndike soxna ndikkee Mbàkke moom nga xam ni euh, dëgg dëgg dara dara soxna Ndike du nangu mu manqué euh, sëñ Abo yow euh, doom yi daara nga sa xam-xam màcc na si wàllum comptabilité jàng sa diine jàng àdduna wër àdduna bi yëpp ñëwaat toog tey ku ñëw daaru mënul ne daaru nuru naag Paris wala nuru naag Atlanta Euh, tey am na liggéey yu bëri yoo xam ne war nañ ko def ba daaru nekk gox bi nga xam ne ñun ñëpp bëgg nañ ko mu nekk ko euh, daaru Muxti si gàttal rek moom fii ci région wu Louga la bokk moom bokkul si région wu ba Touba bokk euh, waaye daaru gannaaw Louga moom mooy gox bi gën a mag si région wu Louga te daaru Muxti fii xew-xew bi gën a mag si région Louga di amee at mu ne muy màggalu borom daaru di di ñaareelu màggal gi nga xam ni moo gën a mag si yoonu Murit sëñ Abo yow kooku ban jàngat nga si def. jërëjëf <coughs> Tunkara ndax jub na. jub baax na <laughs> euh, ñi ngi rafetlu lool sa initiative bi ngay ñëw ci gox yi ndax euh, day wane ni Sénégal gi yëpp moo la intéressi ci sa émission tey nag ñëw nga ci dëkk bu am signification yi bari ci wàllu histoire ci wàllu diine ci wàllu éducation ci wàllu liggéey euh, bu ñuy wax nag ci daaru ñun sunu xel. day dellu un peu ci sunu papa ñu fàttali ko muy alaaj Serigne sàll ndax moom yu ci bari ñun bu ñu toogoon ci moom daf ñuy nettali ndax moom fii la juddoo bokk na ci ñu fi njëkk a juddoo il était né en 1918 moom bi muy juddu dafa fekk fondation Daaru te bu ñu koy nettali euh, taroon na lool même sunu maam yi ku mel ni maam Assa Dieye Sall maam Yacine sàll ñoo xam ñoom tamit ci jigéen ñi fi njëkk nekk dëkk ak borom Daaru. Mhm. fii lañ nekkoon di dund ak ñoom dund fi ay jafe yoo xam ne nii. ñu xool évolution dëkk bi tey ak fi mu toll ak réalisation yi ñu fi def ak potentiel bi nga xam ne dëkk bi am na ko euh, kon liñ ci mën a jàngate bari na. Hmm. ci loo xam ne ni tey xëy na bis buñ ko fi defoon li nga xam ne moom la ñuy wax emploi jeune ci wàllu mbay ci wàllu métier daaru nekk na euh, dëkk boo xam ne nii lu ci bari. war na ko mën a. mais lu tax loolu amut lu tax loolu nekkul te dinañ dégg saa su ne euh, politiciens yi xam nga bu ñuy waaj a falu ñu ñëw dëkk bu mel ni daaru mënoo fi bañ a ñëw. te màggal gi bu dikkee ñoom it dinañ ñëw diggee lu tax daaru boobu ba léegi yooyu yëpp ñu koy digg ak yooyu yëpp ñu koy politiquer kenn gisu ko. waaw <clears throat> loolu nag li ko li ko waral aussi mën nañ ne xam nga boo xoolee dëkk bu mel ni daaru spécificité euh, dafa am benn personne centrale boo xam ne nii moo mooy daaru mooy borom daaru mooy maam Thierno Ibrahima. boo xoolee même ci dëkk document yi xëy na mbay gi dina ci ñëwaat ni dëkk bi évolué lu ci bari ci personnalité ak ci mag ñi mu àndaloon ñoo tax ci seen liggéey seen ñax ba dëkk bi mën a résister parce que am na fi ay histoire yu bari yu fi yu fi jàll amuloon woon ndox amul lu bari seen moo Modou Awa Balla ñëw Baye Cheikh Khate mi ngi def ci waaram mais li nga xam ci côté état bi la mooy li nga xam ne par exemple war nañ xam ne dëkk la boo xam ne nii dafa soxla lu mel ni ndox ñu fexe peut-être ba ndox mi nga xam ne di def culture irriguée fu mel ni côté Daarum fii loolu war na fi am. parce que boo xoolee aussi mais sëñ Abo Sall yéen ñii di doomi daaru ngeen am xam-xam jàng suñu borom ubbil leen si wàllu àdduna lu tax yéen euh, état bi depuis cinquante cinq mu ngi leen di wax loo xam ne gisu ko lu tax yéen tey doo leen jël état bi tegee nële ngeen yéen futteeku teg li ngeen am ne par force daaru day baax. waaw am na nag ay jéego yu ñu ci dox ah euh, defe naa boo xoolee ci réalisation dëkk bi euh, ñi fi dëkk ñu ngi ciy jëm lu bari ressortissants yi lu ci bari ñoo ko fi def. Euh, xam naa xëy na mbay gee dina ci ñëwaat mais mais li am solo xam nga am na ci loo xam ne ni état moo koy doxal ci wàllu investissement bu dee ci wàllu lu mel ni ay forage bu dee ci mel ni wàllu mel ni ay ay ay infrastructure loolu ay moyens état moo ko mën. waaw léegi état kenn gisu ko nag nu ñuy def. waaw euh, loolu <laughs> yaakaar naa ni xam nga débat boobu day gën a xaw a xóot. état gisuñu ah, ko li ñu waaw ñun mënuñu nekk si kaw nii rek parce que depuis juróom fukki at ak juróom te xam nga affaire daaru sans manque mm. at mu ne. kilifa yi dañuy ñëw màggalu daaro xam nga ñemew ñu bañ a ñëw buñ ñëwee dinañ diggee loolook loolu te kenn du gis dara ñun euh, boobu ba léegi président fii daaro sax kenn gis ko fii mais mm-hmm. <laughs> léegi est-ce que dañu toog boobu ba léegi nag toog di continuer di xaar ñoo xam ne du ñëw waaw yaakaar yaakaar naa nag xam nga kook moom wàllu politique la un peu yaakaar naa ne président moom xam naa am na Pastef fu ñëw ci yaakaar naa dina fi ñëw. Ah, waaw lu xam naa nag affaire calendrier rek la moom loolu moom. dina yaa ngi koy layal de <laughs> <laughs> sëñ Abo bàyyi layal président ñetti at ngi nii mu toog fii di jiite réew mi ñetti at ñëwul daaru mais loolu dañ koy wax tamit. waaw mais li am li am solo Tunkara li nga wax xam nga li am constat li am solo mu ngi mel ni li nga wax ci affaire ndox. Hmm. par exemple daaru constaté nañ depuis vingt ans wala trente ans ñu fi màggal chaque année ñu wax problème mu déficit ndox. Ah. ci problème forage parce que boo daaru forage bi fi bu ñuy wax F1 moo fi njëkk ci forage moom la fi sëñ Modou Awa Balla ñu ngi F3 ñu yokkaat yeneen ñaari forage ba léegi day am moment yoo xam ne surtout ay màggal gi lay am problème récurrent la ci wax dëgg yàlla loolu nag ay ay mbir la yoo xam ne nii war nañ ci jël ay matuwaay yoo xam muy mais est-ce que matukaay mu matuwaay mënul nekk tey doomi daaru man dama gëm ne tey sëñ bi su joxewoon ndigal ni dafa bëgg wàllum ndox ñu lijjanti ko mm-hmm. te doomu daaru bu ne fu mu ne na ñëw def si li mu man mais kooku mu day sotti. li nga wax dëgg la ndax boo xool li nga gis li nga gis ni sa kanam. waaw ay milliards la. waaw ca doomu daar yi ñoo ko def. Ah. li nga gis ni sa ginnaaw. ak leneen réalisation yoo xam Baye Cheikh Khady moo ko fi jiite. def nañ ko réaliser comme ni nga wax est-ce jotul tey ñu politiciens yooyu ñu ñuy dig depuis ñaar fukki at gisuñu ko mhm. yéen ñi tey ngeen jël initiative ne par force màggal gii di ñëw ndox dañ koy lijjanti doomu daaru bu ne na ñëw def si dërëmoo ñaar dërëmoo lijjanti ko mel ngeen ni sax na sax nga ñu waaye nag xam nga problème la boo xam bu fa gën a ah. <laughs> lu jar a bàyyi xel la ci nañ ci bàyyi xel ci nañ ci ay jéego comme li nga wax mais nag toujours responsabilité état. doo ko mën a teg ci loolu ñu bàyyi état xam nga tamit boo toogee di xaar train boo xam ni kenn programme wu ko. <laughs> yéen dafa mel ni état bi di leen nax léegi daf leen neex. ñoom at mu ne ñu ñëw toog. si keppaaru màggal gi diggéel loolook loolu te ñu gis dara waa ñu kon ne ba léegi di leen xaar non sëñ Abo yéen dangeen daw seen responsabilité ñu mel ni yow mii nga xam ni yow expert comptable nga suñu borom jàngaloo na la xam nga sa diine kenn mënuloo la nax si wàllu diine wala si wàllu àdduna mais sëñ Abo yéen yaa war a jël mbir mi lijjanti ko ndox fu mu amut dëgg la mais foofu dund mënu fa mënu fa neex def nañ ci nag initiative yu bari nag loolu xëy na am na loo ci xamul hmm. xam am na ci loo xam ne nii aussi même ci wàllu Ibrahima à titre privé Ibrahima Sall mon frère am na ñu fi def ci wàllu ndox loo xam ne il a fait personne bëgguma sax di ko wax. non non am na solo am na solo mais loolu à son initiative personnelle la. mais comme li ma dëkk bu toll nii. dafa loo xam ne nañ def benn pari tey. na ñu ne yow sëñ Abo Sall mii tey da ngay jiite loo xam ni képp kuy doomu daaru foo mënti ne dañu soxla yow sa participation pour problème ndox mi ñu lijjanti. loolu mën a am la. yow loolu sasoo nga ko. waaw waaw yaa ngi may dugg yaa may dugg. waaw waaw dama lay dugal. <laughs> dama lay dugal. kon sëñ Abo Sall. dëgg bu soobee yàlla bu soobee suñu borom. Euh, wàllu ndox mi loolu nag ku ko def si dëkku borom daaru suñu borom dalaa ubbil buntu xewal yow sëñ Abo Sall mii. ma de xam nga ko wala xamoo ko de mais loolu boo ko bayee waaroo boo ko bayee euh, am mun nga si am payor goo xam ne waaye daal képp kuy doomu daaru euh, bés ni ki tey da ngay ñëw jokkoo sëñ Abo Sall mii. ndax mbiru ndox mi nañ ko jëlee féetale fële bu gouvernement bi ñëwee jàpp si xayrul bu ñu jàppul ñun ñu ngi dem ñoom nañ topp suñu gannaaw sax di daw. Euh, Serigne Mbaye mii moom euh, doomi daaru la xam-xam dafa màcc si wàllum euh, démb sëñ bi yow daaru nga juddoo daaru nga màggee daaru nga xam tey boo ñuy tënkal rek si wàllu démbum daara démbum daaru méngale kook tey ak ëllëgu daara la daaru lan nga ñuy wax. waaw jërëjëf Tunkara <clears throat> Euh, euh, démbi daaru ak tey daaru ak ëllëgi daaru fi mu koy tënk rek mooy fi nga duggoon ak sëriñ aboo Sall ndax dégg naa ci biir nga dem ba ni ko nañu teg état bi fële te doomi daaru yi taxaw euh, li nga ubbee sa émission mooy lu jëmee réew mi kanam barab bii di daarul mooti nag li fi nekk borom moo ko fi def ak taalibe yi sunu delloo ci njàngalem Serigne Touba mi mu joxoon borom daarul mooti ñun duñu soxlaal kenn dara. est la preuve en est que fii en la ñu ko sañc booba nguur gi fi nekkoon moo ëpp doole fuuf nguur gi fi nekk léegi autorité ko coloniale ñaali ñoo fi nekkoon borom Daaru Muuti bàyyi ko ka yor ñëw sañc dëkk bi ndox amu fi euh, diine mayoon ko muy tiim waaye mu ni moom facilité yooyu ko charia may soxlawu ko. booba ab xaal la ñu daan euh, toj def ko ci indee muy toq ba ñu am lu ñu mën a toggee bu ñuy soq aussi dañu xar ab xaal boole ko pep mi def ci gën di dëbb ba mu soq waaye teewul hmm. mu taxaw ñaari pouvoir yi fi nekkoon muy pouvoir spirituel ak temporel hmm. dem nañu ba tubaab yi di daw ci gannaaw borom daarul mooti ni ko dimbali nu jox nu pep moom nu dëm mu nu dundale les prisonniers de guerre te booba béyewul tracteur béyewul benn machine loxo la daan béyee ak taalibe am na fi année boo xamante ni capital semencier muy jiwu yu Sénégal euh, euh, euh, ji yëpp dañoo ñëw fii ni ko danoo bëgg nga lebal nu aw jiw nu jox ko réew mi ñu bay ko hmm. ba mu leen ko joxee ñu ñëw di ko wax daf leen leen lebaluma leen yàlla mi am pay moom laa lebal kon fii la ko sañ woon bu nu ci tënkoo bu Sénégal di takk yépp it fii day saxaar mooy jaamu yàlla ak liggéey dafa am ñaar sëñ mhm. Mbaye Guèye mhm. ñaar ñoo xam ne dañ ñu wan si réew mi lan mooy suqaliku mhm. muy sëñ Modou Moustapha mhm. ak borom daaru mhm. sëñ Modou Moustapha dafa ñëw takk ndigam ne raay bi dañ koy teg woo taalibe yi ñu jàpp si teg ko kooku yoon woowu mu xàll daf ñuy wan ne ak jom ak fulla ak fayda mën nañ xàll yoon wu ne sa jamono yooyu borom daaru ñëw si dëkk boo xam ne ndox sax amu fi mu dem ba tubaab bi buur bi ki doon jiite jamono yooyu ñëw di ko ñaani pepp kooku sëñ bi jàngale yooyu ñun tey lu tax ñu jël leen tegee na le waaw loolu loolu euh, loolu mooy wax bi parce que ñaar ñooñu nga tudd muy borom daarul mooti ak Serigne Modou Moustapha euh, en 1938 le président de la République française jël benn décret hmm. ci journal officiel muy borom daarul mooti ak sëñ Modou Moustapha boobu dañu jël deux cent cinquante personnes ci li France yilifoon hmm. pays euh, euh, protectorat la ñu koy waxee xaw ma ak îles yi nga xamante ni ci France la ñu départ ñu sélectionné ci deux cent cinquante personnes ni dañ leen di décorer ci ordre national du mérite agricole. Hmm. ñaari wolof ñoo ci nekkoon ñaari sénégalais le numéro cent vingt neuf moo doon Cheikh Ibra Fati marabout à Darou Mouhty le numéro euh, cent vingt moo doon Mouhamadou Moustapha cultivateur. à Touba loolu la ñu jëfandikoo woon. est-ce que te hmm? moom Cheikh Modou Moustapha moomu ñu dem ba ñu ko dokkoore ak borom daarul Moti jamono jamuy bay waroon na fekk borom daarul Moti wac ndax euh, sunuy nopp euh, ak feeñam ci loxo borom daarul Moti la feeñee. Hmm? moo ko dégg sëñ Moussa Ka mu ni maam Thierno Faté ko dalal baasina ba bàyyi ba dellusee la ko def yaasina sëriñ bi dem ci géej gi ni nga ko waxee ci commencement bi mu jël sëñ Modou Moustapha jàngal ko ba mu bind ab kaamilam sëriñ bi nekk Gabon yónni Abdoulaye Ndour jox ko ay leetar dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni ba Abdoulaye di dellu min Conakry maam Thierno jox koy addiyam ak a bari booleeg mbindum taawam ba am di Moustapha Cheikh Bamba yor ko muuñ ni Thierno xat wa fa kon moo ko ci loxoom la feeñee hmm. muy booba borom Serigne Touba ngi wër Touba borom Daaru Muti nekk Daaru Salaam ak njaboot gi. waaw mais mais ñun tey euh, sëñ Mbaye Guèye Syll ñun ñun ñii tey. Mhm. loolu ñun ñii te wuñ si. wa ci la ñu war a niitu dama bëgg ñu teg euh, euh, bon bien vrai que ni ab groupe de personne fu mu nekk état bi war na leen di bàyyi xel waaye fii ndox fu mu daan taa ba léegi boo demee fekk fa tepp tepp ba. jumaa ji hmm. le premier mai 1966 sëñ Moraw Balla mi njëkk a wuutu borom Daaru Muti booba fii jàkkee sa nga fi nekk mu dajale Daaru Muti yëpp. ni leen borom daaru muuti li mu bëggoon fi daaru jumaa fi des man nag denc ma dërëm waaye am naa yàlla hmm. lu waay indi danaa ko ci def waaye bu ma doon dem ba ca waaxub ndakaaru ba muy port ba ma dafa yan waan ay saaku ñi di ma fay maak sama njaboot ma di ko def ci jumaa ji danaa ko def waaye jumaa ji biñ ko commencé 1966 ba 1979 ñaari at la fi arrêté muy 72 ak 73 ci jamonoy sécheresse hmm. demul wuti recommandation pour dem ci pays arabes yi wala financement état dugalu ci ab dërëmam ñu liggéey ko ba teg caabi ci loxoom bi ñu demee ba dëkk bi xajatuñu fi tam en deux mille au mois de mars 2004 la Baye Cheikh woote ni dañuy yokk jumaa ji ndax nit ñi xajatuñu fi. Mm-hmm. boole ko ak kër borom daaru en six mois lañ ko liggéey. est que kër borom daaru jumaa jaa ngi ni état bi euh, euh, euh, nu mu tuddati exonération bi mu diggee woon pour matériel bi jógee bitim réew sax. dañoo mujj fay dédouanement bi loolu ci poos yi murit yi poos yi taalibe yi borom Daaru ti parce que ma wax la benn anecdote Tunkara li nga wax mooy nun ci suñu bopp noo war a yeddaat suñu bopp delluwaat ci njàngaleem borom Daaru Muxti gis nga pàkk bu tedd bi di Touba. Hmm. di premier capitalu mouridisme borom Daaru Muxti moo ko sancal sëriñ Touba ci 1900 1888. sëriñ bi dëkk fa juróom-ñaari at dem ci géej gi bi mu ñibbisee euh, dem gànnaar dem jolof ba mu fa jógee ci le 14 janvier 1912 ñëw Diourbel ñaari at dafa am 1914 mu yónnee borom daar Muxti ni ko demal sancaar dëkk ba. Hmm. borom daar muuti ñëw. sëriñ Abdou Khader feeñ ca sanc ba sëriñ Touba ni ko demal joxe ko aw tur ba ba ngay dem ba ba ngay dikk ku sa bët tegu ci moom yaramam araamal na sawara. est-ce que. muy 1914 ñu teg ca 5 ans mu yónnee waat woolu ko 1900 non 1919 mu yónnee ci moom ni ko boo demee Touba suuf si nekk ci kaw dugal ko ci biir suuf si nekk ci biir nga génne ko ñu bàyyi ko fii ci Cinkooli le 26 avril 1919 dem Touba ñu jal pak Touba gépp ñu def ko ay jal ba ci kaw ñu gas am leeñ mooy pax mu gudd jël suuf su màggat sa suule ko ko jël suuf su yees sa tasaare ko ba dëkk ba lépp di suuf su bees mm. am ku ñëw ci borom daaru muti ni ko sëñ Touba li mu bëgg munta nekk guerre baa ngi doog a jeex la première guerre mondiale ay seng amu fi am na benn chef de canton ba gis naa mu dajji seng yu màggat yu bari demal seeti ko mu jaay la seng yooyu boo mu demee borom daaru muuti nii kii de xamul Serigne Touba xawuma ndax Serigne Touba lu mu bëgg am ko te lu mu wax danaa ko def. daal di jox moor Mor Diabou ma Matar Samba Diop ñoom ma Massaer Sil mag ñooñu Serigne Pathé Sall jox leen xaalis ni leen nañu dem ci comptoir yi fi nekkoon les Morel pro Morel frère ñu dugg ci fu ñu jëndee paquet yi sang teg ko ci saxaar mu indi ko njaareem. murid yi ñoo ko yenoo waa Daaru Muti ñoo koy yenoo njaareem ba indi ko Touba borom Daaru Muti seng na Touba moske muy fii jumaa ji nekk te bu ma la ko doon melal mooy kër sëriñ Saliou kër sëriñ Abdou Khader eh, kër sëriñ eh, Fallou kër sëriñ Abdoulaye ak kër sëriñ Touba gu mag gi loolu moo doon benn kër gi ñu mu seng ko seng daaru Khoudous seng seng daaru gi sëriñ Chouaib bu nekk muy daaru Rahman ak daarul Minam goog sëriñ Basirou ba mu noppee desal na fa junniy seng ak juróomi bërigoy po eh, pont ak téeméeri junni ci xaalisum nguur. loolu dafa am solo Baye Cheikh Khady delloo ko njukkal ndax waar wi nga xam ni. moom euh, bay na ko ba mu toogee fii si jal bi euh, ne xalif fii ci Daaru Moxti euh, dëgg-dëgg lu ñu teg bët la te di ko ñaan suñ borom rek mu fay ko gën di fay kon sëñ Mbaye Guèye sil yow nangu nga ni tey su suñu suñu jëloon maanaam dogu ne ndox mi dañ koy lijjanti mën na lijjanti ko. loolu kay ci borom Daaru Moxti laa koy waat dama ni la gis nga jëf jëf ci yoonu murit hmm. daaru muuti daf cee amul morom loolu borom daaru woobu muuti waxoon ni Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg am ko te lu ma sant dinaa ko def sëñ ma daw ball mi njëkk a wutu borom daarul muuti Sëriñ Fallu Mbàkke dafay béy ñeenti gerte yoo xam ne gerte gu ci nekk ay kilomètres yu dul jeex la mu ñëw ni sëñ ma daw ball damaa bëgg ngeen ñëw deqil ma gerte ga mu yi di ci teg ñu ni daaru muuti danañ ko deqi ci ñeent fukki fan ñii ni weer ñii ni ñaari weer bis ba ba mu egsee deqi nañu gerte ga dajale ko naaf ko ñëw fanaan si Darou Mouti am na gor gu ñu ci defoon ay béy di wax ni àllarba jëy nit yi fan ciw tam xarit la ni woon gerteem ngi day kilomètre lay déqiloo daaru yeneen ti gerte yu yaa gu nekk di kilomètre nungoom nga ak yaatu ga ak dërëm saful daaru dem ba ni turandooy borom daaru muuti yi rek waxuma waa daaru waaye turandoo yi ñu tuddee borom daaru muuti rek bu ñu demoon déqi ko muy si juróom-ñetti fan eh, mais kon daal wàllum ndox mi yow ànd nga ni que loolu mënees na koo sànjaafu dóor mu daanu du loolu Euh, forage bi ñu njëkk am le gouverneur Viltor moo ko may sëñ mu daaw balla mais bi ñu ko gasee ba mu bënd dañ ko kaste ni équipé guñ ko amuñu château d'eau amuñu sëñ mu daaw ball ni leen wutal leen ma machine ñu jox ko machine muy jël xaalisam di jënd gasoil ñu formeel ko euh, euh, Mbay Taabaan Njaay gannaaw ba sëriñ Mouhamadou Matalla mu daaw balla ñu daan ko wax la sëñ mu daaw balla di jënd gasoil ci ci ci poosam ñuy taal machine ba poste bi nu lool ba mu demee ba Daaru Muti war a am poste moom moo joxe woon oto ñu def ko courrier musta xaar ci ci pouvoir euh, euh, temporel yi dara. macha allah Muti loolu lañ ko sañc woon. aywa te loolu euh, dafa war a wéy sëñ Abo Sall yow lan mooy dénkaane. waaw dénkaane bi mooy xam nga dëkk bi dafa am importance ci yoonu mouridisme ba xalif bu fi mës a nekk daf ko jox importance bu rëy képp ku fi mës a nekkal sëñ Touba dafa am importance ci mouridisme am importance ci diine ji am importance ci réew mi boo xoolee Daaru. mi ngi nekk presque à mi-chemin entre ñeenti goxu Sénégal yëpp digganteem ak Jolof soriwul digganteem ak Kajoor soriwul di digganteem ak Bawal kon point stratégique la boo xam ne nii même les historiens doon nañ ko wax ba pare boo xoolee modèle bi comme ni sëñ Bay wax esprit bi nga xam ne moo fondé Daaru ak modèle bi fi nekk ak nit ñi ñu dundee nekk na loo xam ne nii quand même euh, c'est vrai que nii war nañ ko gën a jox importance war nañ ko gën a jox gëddam quand je parle de ça par rapport même à l' état central. loolu nga bëgg wax ne état central joxuñu tey gëdd euh, Darou Mousty joxuñu ko. gëddam yu war nañ ko gën a jox nañ ko am na lu ñu ko jox waaye war nañ ko gën a jox gëddam parce que rôle ak prépondérant bi mu am ci yoonu murit ak ci yoonu diina ak ci réew mi ak équilibre bi muy joué ci réew mi. loolu lu am solo la. kon yow sa message daal moom mooy euh, ñiy jiitee réew mi tey ni ñu gën a bàyyi xel Darou Mousty jox ko gëdd bi mu am waaye ñun tamit message bi bi ñu am si yow moom mooy euh, laaj la si ban diir nga foog ni euh, lii ngeen bëgg a sànjaafu ngir ndoxu daaru bi jàppandi si ban diir ngeen ko bëgg tënk. waaw loolu de xam nga yow da euh, def benn challenge waaye comme li sëñ bay wax rek dafa naan loolu moom lépp luñ fi song rek war nañ koo mën a daaneel. macha allah waaw aywa. loolu li ci des nag dañ koy ci loxo yàlla. aywa macha allah euh, sëñ Abo Sall mii tey bu soobee yàlla gëm nañ ne que balaa màggalu daar yi di ñëw wàllum ndox mi dinañ ko lijjanti ndax ñoom doomi daaru. Euh, dëkk bi si loolu lañ ko sàncee lépp loo xam ni sànjaafu nañ ko ànd seeg fulla fayda Pastef suñu borom dafay ñëw ubbi sëriñ Mbaye Guèye Sy yow lan mooy sa dénkaane. waaw dénkaane bi de mooy ginnaaw bu ñu leen sante gërëm leen euh, ñu dellu rek di wax comme ni nga ko waxee euh, waa Darou Mouti ñu yaakaar borom Darou Mouti ñu gembuwaat parce que yaa ngi wax ndox di ko répété. Mhm. mais ñun li ñu soxla mooy lu ñu fayee courant. ndox am na fi am nañu ñetti forage quatrième forage bi bënn na. problème bi mooy xaalis bu ñu fayee euh, euh, facture yi kon loolu ci la ñuy soññu nit ñi ñu taxaw ci ndax fii borom daaru muti gasoon na fi ñeenti teen waaye benn moo ci amoon ndox te 285 mètres la woon muy aynu. waa léegi fan la ñuy jëlee lu ñuy fayee courant problème bi lu koy réglé. lu koy réglé mooy euh, bëccëg 50 francs la ñuy laaj kenn ku nekk vers 1500 francs ñi ñu recensé bu ñëpp fayoon danañu mën a fay danañu mën a fay courant bi. nit ñi duñu fay. Euh, am na am na ñuy fay am na ñu dul fay. waaw lu tax fay. ah loolu lool loolu c'est ça le problème sëñ Abdou Khoudoss ba mu fi nekkee dafa mujjoon boole gendarmerie ak ñiy fay ngir ñuy wër di fay ñun suñu problème du ndox on a des forages on a quatre forages mais le problème qui se pose mooy. li italiens yi wax wari euh, <laughs> soldi ngir fay euh, li nga xamante ni bii moom mooy ndox mi kon soñe bi mooy loolu. ndax ñi dañuy jëfandikoo ndox bañ a fay. dañuy jëfandikoo ndox te duñu fay soo ñëwee ka yor boulangerie ka yor station kay mool kay nu mu tuddati kenn ku nekk fukki dërëm lay lay laaj par jour mooy mille cinq cent francs par weer waaye tey boo tey vérifier la fa nekk ci ay arriéré kenn xamul nu mu toll on n'a pas problème de de forage de de notre problème c'est euh, euh, l'électricité facture yi ngir fay facture loolu moom mooy suñu euh, problème doomi Daaru Muxti nag ni nga ko waxee hmm. ñi ngi ciy jàpp ndax fii defe naa dem yéen ci armeel yi gis ngeen di armeel yi eh, El Hadj Serigne Sall moo ko eh, muré woon en 1977 ak njabootam Ibrahima Sall gis ngeen ni mu ko defaat ay doomu dëkk baa ngi fi di jëf ci dëkk bi loo xamante ni bëgguñu ko ko wax. Hmm. saa bu ñëwee ci dëkk bi danañ fi tasaare ay millions ci new ji doole mais bëgguñu ko ko wax ak kon lool yu baree baree bare mais fi may daan rek sëñ Tunkara da nga laaloon point bu am solo bop eh, bu nu ko yàlla mayee loolu bëggoon naa ci ab émission mooy Serigne Modou Moustapha ak raay bi. macha allah ndax dama découvrir sur les euh, euh, archives nationales de France. que ni le ministre des colonies defoon na benn demande d'autorisation pour raay bi entre Diourbel Touba 45 kilomètres virgule 80 90 euh, mètres euh, maanaam 46 kilomètres yu manqué 50 mètres la woon ñu jël décret dégagé 22 millions 950 mille en 1931 xaalis boobo fu mu jaar. Hmm. kenn gisu ko. ku ko lekk loolu laa bëgg ñu leeral ko parce que j'ai tous les documents avec moi. mais si documents yi wax nañ xaalis fu ja jaar. non dégagé nañ ko non def décret euh, journal officiel du génne caaxaan. jërëjëf génne na boo xamante ni bii dégagé nañu deux mille euh, vingt deux millions neuf cent cinquante mille. le ministre des colonies. moo def autorisation bi ñu autoriser ko mu wax ni budget local bi mën na koo def kon sëñ Modou Moustapha dafa waroon na toog Touba ba raay bi egg si mais xaalis bi kenn xamul fu mu jaar ko lekk tubaab tubaab yi nguur gi fi nekkoon ñoom ñoo ko lekk loolu la ñu war a leeral parce que euh, euh, waaye loolu kay yow yaa ko war a leeral yéen ñi nga am seen xam-xam moo la moo tax ma ni la émission tey moom du fi xaj loolu moom dama see jox may naa la émission boobu léegi kay li may wax mooy yow mm-hmm. ndax gës si sa gëstu këyit yi nga gis yow gis nga xaalis bi kan moo ko lekk non lool moom gisuma ko mais en tout cas gis naa décret bi journal officiel bi mu génn mu ngi ak man. tubaab yàgg nañ njublang nga sax yow boo ko gisoon ndax le ministre des colonies moom estimé na ko à vingt deux millions neuf cent cinquante mille. Hmm. le président du de conseil des ministres moom il avait réclamé quarante millions. te ñoom ñëpp le président de la république française lañ ko bind ñu décrété ko génne vingt deux millions neuf cent cinquante mille teewul. njool Aminata moo jëlee raay bi dégg nga la ko woykat bay wax moo indi raay bi moo fi def jumaa ji moo indi Cheikh Bamba ci biir mooy waa ji kon tubaab yi yàgg nañu noonu nax nax yu yoo xamante ne yu doy waar la ndax pemp borom daaru moo ci moomu Serigne moor Jëbu maa ngi document yi bi mu demee euh, deux mille huit cent francs lañ ko jox ci loo xamante ne bii ci la ñu doon dundale prisonnier de guerre yëpp kon daal Tounkara yow sëñ Mbaye Guèye Syll euh, foog nga ñëw loolu nag boo ko gëstoo ba mu leer. Mhm. Euh, ñu xam tubaab yi sàccoon xaalis boobu euh, nga ñëw vraiment leeral ñu ko. Mhm. dees na leen a porter sax fa ñu tëdd ñoom. kon fii la ñuy fii la fii la ñuy sëñ Modou Makhtar mas na koy wax ne day porter plainte tubaab yi ndax li leen borom daaru muti lebaloon fay ñu ko pep moomu ñu jël. waaw bi demee maa ngi les documents 2800 francs lañ ko ca jox. est-ce que ci loolu kon daal. tubaab yi suñu amee lañ ñu ax. oui kon daal pour tàggatoo. <laughs> waaw dañuy sant borom daarul muuti delloo njukkal ki ko njëkk a wutu di Cheikh Mamadou Hawa Balla jàmbaar jooju doon wax ni daaru muuti dugg naa ko heure bu ne génn ko heure bu ne ngeen mu jàkk ak Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké mi doon wax ni bëgguma daaru muuti ñee benn njëkk Serigne Cheikh Khadim Mbacké mii fi nekk ni daaru muuti doo ñee benn dëkk yàlla na ko fi sunu borom yàggal te wéral ko te yàggal lu ci gannaaw amiin amiin euh, Baye Cheikh waa euh, waa kër gi yëpp ñoom euh, sëñ Abdou ak ñoom Soxna Ndike ñooñu mbirum Serigne Touba ak borom Darou Mouhty lépp euh, ay mbiri sunu borom la yoo xam ne dañ koy dundal won ci nit ñi lenn luñ mën a dund bu ko defee fii ci Darou Mouhty nag keroog bi nga xamee ne borom Darou Mouhty jot na ndigal loolu ci Serigne Touba e, jóge Mbàkke kayoor sanc ko e, nekk fi def fi li war a def lépp taxawal ko e, yàlla dogal mu jógee fi 1943 Serigne Mamadou Awa Balla mu di ab taaw mu wuutu ko. liggéey ci liggéey boo xam ne bi xam ni sëri way juróom borom Daaru Muxti fi mu fi mu fi mu fi mu jëmoon taxaw ci bu baax boo gisee sa kilifa yu baax yooyu taxaw taxawaay yu mel noonu yow nag la ca war a doon sa wàll moom mooy li nga xam ne moom la murit am muy wéy ci ndigal di di di di di wéy ci ndigali sëriñ bi di xool ay bëgg-bëggam loolu mooy li nga xam ne moo gën a gaaw ci àggale fi nga xam ne fa la jëm ndax sëriñ bi lu baax ci eh, réew mi lay def lu baax ci dëkk bi lay def lu baax ci nit ñi lay def moom lay wone kon ku juyoowut ak moom ci ay bëgg-bëggam juyoowul ak moom ci ay xalaatam loolu yaakaar naa ne fa la fa la màgg gi fa la fa yokk gi foofu la gën a gaawee loolu nag la leen ci war kon kon mooy lépp loo xam ne sëriñ bi nee na nii la ñu ànd ak moom ca loola ndax xam nañ ne sëriñ bi defar moo koy tax a jóg xam nañ sëriñ bi yokkute moo koy tax a jóg xam nañ ne sëriñ bi yaatal moo koy tax a jóg su ko defee ñu ànd ak moom ci loola lépp nag di tegu ci kaw ndigal bu dee ci wàllu liggéey bu liggéey jotee sëriñ bi dana soññee ne jóg leen liggéey yi ñëpp dem dem dem ci tool yi liggéey da cee boole di wax ne sax bu kenn xeeb benn jiw woo am ndax kenn xamul luy baax yàlla rek mooy mooy baaxal eh, ba tax na bul ne nangam laay bay bàyyi nangam kon kon lépp loo xam ne eh, lu lu mën a sax la rek ci gox bi eh, boo ko amee def ko te bu ko xeeb bu ko góor xeeb bu ko jigéen xeeb bul ne am aw ma waaye am naa warax wu ma bay wala am na nag wu ma bay wala nangam da ngay fexe na bu suuf si tooyee rek loo am def ci yaakaar naa développement loolu mënu ko gën a kii ci bu dëgër bu mel noonu mooy li nga xam ne moo sosoon barab bi tax Serigne Touba ko waxoon borom Daaru Muxti ne lu mën a xew ci kër àdduna bul taqalikoo ak mbay ndax mbay mooy li nga xam ne eh, lépp loo fàggu lu dul mbay bis dana ñëw la nga fàggu woon nga dem jënd jikko lu ñu bay ba tax na kon mbay mooy li nga xam ne mooy teral asgor mooy dundal ab dëkk mooy dundal dundal ak wax loolu Serigne Touba dénkoon borom Daaru Muxti fi jaar ñëpp ci loolu lañ nekkoon ba sëriñ si xaddi mi nga xam ne tey moo fi moo fi nekk loolu lay dundal li may jeexale moo di euh, li nga xam ne mooy li nu am nga xam ne euh, am na kenn koo xam ne euh, ci réew mu mag la dëkk ci àdduna bi am liggéey buñ ko fi defloo nga xam ne ci ci ñi fi ñi fi nekkal seeni réew la da am koo xam dafa wax ne am ngeen loo xam ne bu ngeen ko ñàkkee du ngeen dese dara Euh, loola mooy benn baat boo xam ne mooy moo leen di yëkkatiloon jóg leen ngeen jóg toog leen ngeen toog muy baatu ndigal boobu ak am kilifa moom ngeen am loo xam ne eh, bu ngeen ko ñàkkee du ngeen amat leneen ndegam kookee nga xam ne nag bokkul sax ci diina ji bokkul sax ci réew mi moo gis loolu asamaan nun kon ku am kilifa li baax moo jiital sa kilifa dëggal ko te bañ ko fakkastal te yoon wu mu la jaaral la nga jaar ci te xam ne yoon woo mooy mooy mooy wa gën loolu mooy li nga xam ne moo nu mën a may développement économique bu baax moo nu mën a may sunu sunu sunu diina ji jag moo nu mën a may itam sunu doxalinu dëkk boo xam ne dina tegu ci ci yoon mbokk yi tey sunu jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi ko amal fii si Daaru Moxti Daaru Moxti di dëkku euh, maam no Birahim yàlla na ko suñu borom dolli leer euh, dëkk bi nga xam ne fi mu toll nii bàyyi see Khady Mbacké moom mooy euh, xalif bi ñu ngi si ànd ak Wagan fay Wagan fay moom gendarme la boo xam ne dafa à traité Euh, nekkoon fii commandant brigade gendarmerie bu Darou Mouhty yëpp di leen delloo njukkal sama wóllëre euh, commandant Mor Fall ànd si tamit ak euh, Madiop Bitèye Madiop Bitèye moom mooy maire Darou Mouhty moom député la woon fii moom di kilifa Euh, si parti démocratique euh, sénégalais euh, Wagan Faye di la nuyu di la dalal la ziar. ñoo ngi lay nuyu di la ziar Tunkara. aywa le maire yow depuis kañ ngay jiite fii Darou Mouhty. waa ñi ngi sant ñëpp di nuyu di jiital ci nuyo bi Baye Cheikh di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér. mu gën ñu gunge ba ca kanam kanam ba lii ñu yor ñu ñeme ci ndax xam nañ ne bu ñu ko téeñalee. wóor nañu ne danañ ci am ndam ñun nag biñ ñu falee 2014 euh, la ci élection locale yi nga xam ne amoon juin 2014. aywa euh, donc ñu installé en août 2014. 2014 léegi euh, Madiop Bitèye yow Darou Mouhty fii ñaata nit ñoo fi yeewoo. waa Darou Moussi population Darou Moussi ci dernier recensement bi ñi ngi ko estimé woon autour de vingt six mille habitants. mooy euh, mais mais waaw mais waaw loolu la ñu. bind ci ci ci estimation yi. Euh, mais euh, ñoo ngi doon tourner ci estimation yi amoon avant recensement di am ñu ngi doon tourner autour de trente cinq à quarante mille habitants. malheureusement recensement yi am xam nga ni population yi parfois. soo ñëwee di recenser duñ wax li fi nekk ci ay nit duñ wax li boo ñaata doom nga am <laughs> dëgg la dañuy wax benn wala nanga euh, fii tey Daaru Muxti euh, si population boobu diggante góor jigéen tey euh, lan mooy répartition bi ñaata góor ñaata jigéen ci dernier pourcentage yi am ci par rapport ak recensement bi aussi li ñu wax mooy jigéen yi ñoo xaw a ëpp tuuti góor ñi ñaata ban pourcentage bon je amuma exactement chiffre mais li ñu doon wax ça tourne autour de cinquante deux ak 48 pour cent euh, ñaata étudiants yi ñoom ban pourcentage lañ fi. ah étudiants yi nag amaguñ chiffre pourcentage. élèves yi de toute façon cette année étudiants université Dakar nee ma toll nañ ci 600. Euh, élèves yi fii ban pourcentage. élèves yi boo xoolee ci école primaire yi en tout cas ci côté fourniture élèves. lañ jëndaloon fourniture. ñeenti junni si ay élèves ñeenti junni élèves école yu ndaw yi. est-ce que am ngeen tey ay chiffres si wàllum chômage ñi liggéey ñi amul liggéey. bon malheureusement xaj na recensement bi ñu defoon xaj na dana génne chiffres yooyu mais pour le moment amaguñu. amaguñu euh, chiffres monsieur le maire lan nga bëggoon leeral yow. waa li mu bëggoon leeral rek mooy euh, dañu ne ñu communalisation intégrale moo am Darou Mousty taamuwul nekk commune. Sénégal mooy dox ba mu yàgg président de la république daan ne bëggatuma dégg communauté rurale donc communal commune mooy am donc ñëpp ay taax-taax lañ kon ñu day nekk taax ñu def ñu commune euh, yàlla dogal ñun ñu njëkk a nekk maire Darou Moussi bi ñu ko nekkee tam bi ñu ñëwee dañ fekk ay jafe-jafe parce que population yi aussi am na lu ñu leen tàmmaloon fay gi bari wutoon jafe-jafe yi bari na éclairage public bi amoon na ay jafe-jafe bi ñu ñëwee aussi première chose mooy il faut ñu attaquer éclairage public bi renforcer éclairage public bi ba yàlla suturaal nañu ci ba lu ci bari defar woon na mais également bi ñu ñëwee dañu fekkoon ne gone yu bari yi juddu ci diggante 2008 ba 2014 bi ñu ñëw daanaka amuñu registre. déclaré dañ leen dañ leen non bind dañ leen mais ci ay kayit lañ leen bind. waaw soo ñëwee maison communautaire di déclarer sa doom au lieu ñu bind ko dem jël registre bind ko dañ ko doon bind ci feuille rek daal denc foofu léegi nga ñëwaat di wutaat këyit wa ñu xool gisuñu ko ñu ne réer na. donc bi ñu ñëwee ñu ne kon am nañ retard presque juróom-benn at juróom-benn at yooyu ñu tardé nag faw ñu jënd ay registre pour que doomu Daaru Muxti bu juddu man a am registre buñ ko bind mais ña juddu woon aussi te amuñu woon registre ñu reconstitué waat leen pour ñu mën leen monsieur le maire ma jaaxal foofu pour le mm-hmm. moment loolu 2014 ak 2015 moom réglé nañ ko mais desere waat nañu ñetti at yoo xam ne ni war nañ war nañ réglé mais ensuite am nañ problématique ci école yi parce que bi ñëwee ci école primaire yi liñ fi doon fekk ci fourniture bari wutoon mhm. suñu fourniture yi ñu mujj joxe cinq millions joxe nañ ko de fourniture ak benn appareil photocopieuse bu ñu jëndal école primaire yi mais également école primaire yi dañ leen a wutal gardien te loolu daaw ñu ko def wutal leen ay femmes de ménage également di leen fayal facture u courant yéen seen budget suñu budget xam nga nag budget li ci baax ñu xam ne prévision la maanaam ñun bokkuñoo ab conseil départemental wala nguur gi nga xam ne moom état bi da koy daal di jox budget ba ñun suñu budget ci dëkk bi lay jóge biñ ko tënkee daaw dañ ne woon war nañoo mën a am cent cinquante six millions cent cinquante six millions yi war a am war ko jëlee ci juuti bi ñuy def ci biir dëkk bi jàpp nañ ne état danañu ci dimbalee ñaar fukki millions parce que daaw joxoon nañ ñaar fukki millions kon ren dañu joxaat ñaar fukki millions. prévision wu ñaata ngeen mujj réaliser. li ñu ci réaliser état bi vingt millions yi ñu doon xaar am nañ vingt millions ngi doon xaar am quatre vingt dix millions yoo xam ci suñu ressource propre lay jógee quatre yi vingt cinq ci réaliser. fi mu hmm. ñu toll. mais loolu ah, li ko indi waaw lu ko indi parce que boo xoolee 2013 bi ñu jëlee euh, mairie bi bi ñëwee xool le compte administratif de 2013 dañ fi fekk ne Darou Mousty lim daje lépp ci xaalisam ci diggante juuti ak euh, stationnement 1 million 500 la. loolu néew na. trop mais ñun boo xoolee ren am nañ ci 9 millions. te euh, pourtant yokkuñu juuti yokkuñu dara mais fekkoon nañ fi loo xam 1 million 500 la am ci at ñun juróom-ñaari weer wala juróom-ñeenti weer bu ko matee ci lay yem. ba mooy dernier résultat yi am ci premier novembre ñoo ngi am lu mat juróom-ñeenti weer. taxe rural même foofu compte yi compte yi da ngeen si fekk yoo xam ni jubut. non bi ñuy jël bi ñuy jël pouvoir bi vraiment local compte administratif ba zéro lañ fa fekk. 245 hmm. 000. lañ joxoon passation de service. amoon na yoo dañ ko luubal ak yooyu. am na ay jafe-jafe yoo moom parce que wax sànq ne ma amul nëbboo amul nëbboo la donc war nañ wax yëf yi mu leer aussi. Mhm. aw ma benn preuve que ne diw jël na du ma ko wax parce que mën nañ ma ko waxal te nit ñi duñ ci am preuve donc du ma ko jiñ kenn. Mhm. mais itam gisoon nañ fi xam doy na exemple nga ñëw boo xam ne ni euh, par exemple 6 millions la kenn waroon na defar benn euh, abreuvoir wala waroon def nangam ñu fay ko xaalis ba ba mat. te pourtant kenn réalisé kenn kenn réalisé dara loolu moom euh, réew mi bëri na fi lool loolu euh, gis nañ ko fi waaw non loolu du moom euh, te loolu PV de réception yi waaw fournisseur ba dafa signé PV de réception wane ne moom la mu woon ak ñi moom def na ko te kenn gisul dara kenn gisul bon yéen ñii tey bi ngeen toogee ba léegi lan ngeen def fii daaru muxti yoo xam ne doomi daaru tey ñu ngi si jariñu tàmbali naa ci éclairage public bi wax naa ne la éclairage public fi mu doon lamp yi tàkk nañ daaru yëpp du ma wax daaru yëpp du na mais du wax yëpp tàkk na parce que bañuy ñuy doog di commencé de yëpp tàkk na mais yëpp tàkkul loolu bëgg bàyyil la ba ñuy doog di tàmbali dañ ne woon na lamp yëpp takk te bu mu gaaw a fay te bu fay itam nañ ko gaaw taalaat am na ay benn benn yu ci fay mais ba ñëwee def nañ ci lu mat 6 millions yoo xam ne ni sur fonds propres pour que lamp yëpp mën a tàkkaat amul ensuite li ñu war a comprendre mooy ne commune Darou Moussi communauté rurale la parce que 73 villages moo ko construire te 73 villages yooyu au moins am na lu mat fukki villages yoo xam am nañ te ñun ñooy defar éclairage public. mais léegi yow boo ci dem tey jii éclairage public muy tàkk tey jii bu 19 heures et quart jotee boo moytuwul da gis lamp yi lamp yi lamp mais yaa ngi wax lu ñu def donc loolu bi ñu dog di ñëw def nañ ci lool mais Magal Darou Mousty bi ñuy ñëw injecté waat nañ 10 millions ci éclairage public pour renforcer lamp lamp. kon def ngeen éclairage public ak lan ndox mi. dugalaat nañ ci douze millions pour def quatre kilomètres de ndox ci biir ci biir dëkk bi wax naa la. sànq yooyu jàppandi na. mi ngi ci biir dëkk bi. Hmm. ensuite wax naa la fukki million ak ñaar ni defaat nañ ko ci jam ci atum ren. bon def ngeen éclairage public. Euh, ndox six million ak ndox mi def ngeen fukki millions ak ñaar ak lan ngeen def. Euh, fi mu ne nii amaat nañ benn budget boo xam ne nii prévoir nañ loolu fonds yu ñu réaliser la du dige douze millions yoo xam ne nii dafay duggaat ci renforcer euh, réduction d'eau bi. mais également jëlaat 7 millions wax nga ko sànq si ndox pour étudier problème yi ndoxu Daaru Musi am lan moo tax Daaru mussi malgré que forage yaa ngi dox mais léeg-léeg ñu ne bi amul ndox koñ bi. boobu noppi boobu non étude bi noppi gu mais baa ngi taxaw ñu mën a def étude boobu dañ ci déggoo ñi nga xam ñoo yor mi. ak borom dëkk bi pour xool nan la ñuy eh, régler problème mu ndox mais également à côté dañu négocier ak des partenaires pour ñu ñëw fii jàppale ñu si problème agriculture barki dem bi ñuy def suñu réunion a d' orientation budgétaire amoon na ñaari partenaires yu ñëw kenn ki nee na dañu jàppale pour ñu am euh, une ferme agricole boo xam dafa waroon ànd forage bu ñuy gas mais dañu yéex a xam ñoom Daaru Musi dañ leen yéex a contacté ba barki dem lañ leen contacté donc danañ fi ñëw defal ñu fora forage yi nee nañ jeex na mais danañ def ferme boo xam ne nii day ànd ak tool ah, loolu moom ay digal li moom wax digal lu leer la du du ah, ay digal bi beneen ah. bi li may wax lu leer la du ma du ma du waxantu parce que bi digal la déglu xam nga fii laa dëkk ci dëkk bi waaw waa dëkk bi toog nii waaw mais dama loolu digal la di damay wax lu leer laay wax man duñ ma wax looloo xam ne amul lu lu dul am lu wóoragul du ma ci dugg parce que dafay loolu wóor na. lu ma wóor la maanaam dige bu wóor la. bu wóor la beneen ay dige politicien nag yëpp a nag. bii du politicien. bii du politicien bu dee politicien bi beneen bi. bon man dige politicien gëmu ma ko. man man sama non damay man mooy wax ma. man dama jàpp ne dama sol benn mbubu boo xam pour juróomi at la. bu juróomi at yi jeexee dama koy summi ñu solalaat ma ko wala ma bañ ko solaat te mu bëgg buñ ko summee itam ma mën a rombaat nit ñi fii. ah loolu politicien yëpp loolu la wax ne. non waaw bi bokku ci bi bokku ci parce que. yow yaay exception de la règle. bi daal bu dee politicien <laughs> noonu dañ garaaw de sunu politicien. Euh, léegi mais ma ma ma ma leeralal foofu xam nga wax nga problème donc loolu def nañ ko ci mais centre de santé bii. 2 millions de médicaments lañ leen jëndal. 2014 2015 bi ni ci màggal ci màggal donc léegi yow euh, alphabétisation bu daan am ay projet privé ñoo ko daan def Daaru Musi mairie bi moo ko njëkk def jël 1 million dugal ci daar yi commune rurale musu leen di jàppale jël nañ 2 millions jox leen daaw jëlaat 2 millions joxaat leen ren très bien loolu ay subvention tamit football yeeg nawetaan yooyu yëpp même chose les jeunes leen laajee li ñu joxoon ren jii nii musuñu ko am Darou Moussi ba daar Darou Moussi nekk Darou Moussi wala euh, boobu benn politicien moo ñëw def ko. ma yóbbu tey ni muy waxee nii noonu la politicien yëpp di waxee. def naa lii fëgg sama dënn li ñu def ñun kenn musu koo def. Euh, ñun dégg nga maam nangam sangam te politiciens yi. Euh, boobu ba léegi tamit juróom fukki at ak a ngi ñoom ñoo suñu réew mi. mais réew mi ba léegi suqalee koogul bon sa message lan la sa dénkaane lan ngay jeexalee. sama dénkaane mooy am na ay perspectives lay doon parce que dana dana dana dana xaw a jafe tuuti mooy ne abattoiru daar Moussi bi ku nekk gis na ne bari na ay jafe mais am nañ ay partenaires yoo xam tam pare nañ pour ñëw ci 2016 bi pour defaral ñu ko au moins ba abattoir ba moom dootu. dootu boobu mooy ñaareelu bi nag. sëñ man li ma lay wax. Hmm. dama ne la sama der bi dama ko fonk bu baax am na loo xam ne ni du ma nangu muy daal sama kaw. ah waaw euh, moom maanaam xam nga euh, loolu nag. beneen bi ñu koy gis rek nga noppi. waaw da nga ko gis incha allah. beneen bi danaa la invité waat fii bu ñu koy inauguré beneen bi mooy. yaari Dakar dafa am poste de santé. Hmm. mais am nañ équipement yoo xam ne ni commencé na ñëw te incha allah bëggoon nañ. balaa fin d'année bii mu ubbeeku. soobee yàlla te loolu lañ nekk Kër Aliou Ndiaye am na poste de santé. Hmm. mais équipement bi aussi acquérir nañ équipement bu bëgg nañ mu ubbi. Euh, Dibiyaat également am nañ financement pour construire fa benn benn benn benn dispensaire. ay dige yoo xam ni donc Tunkara euh, bari nañ lu bari yoo xam ne ni. mënoon nañ ko wax étudiant Darou Moussi. dañuy jëlal immeuble appartement du moins boo xam un million huit cent la ñuy fay par an. jël ngeen ko te pourtant sur propre lañ ko jëlee yoo xam ne ni xaalis waa Darou Mouhty donc li may ñaan waa Darou Mouhty rek mooy ñu comprendre ne que ñun ñoom ñoom la ñuy liggéeyal. parce que liggéey bi ñuy def defaluñ ko kenn ku dul ku dul ku dul ku dul ñoom. te mënuñu ko euh, def <laughs> te te kenn ku nekk joxewul contribution bi mu war a bi mu war a joxe. loolu yëpp dëgg moo tax bu ñu nee Darou Mouhty en 2013 875 000 lañ fay euh, taxe rurale en 2000. quinze ñu fexe ba trois millions génn fii de taxe rurale ça veut dire que ay effort mi nga am évolution mi nga am bu ñu nee juuti bi un la tey ñu góorgóorlu ba neuf millions dugg ci ça veut que ñoo ngi def ay effort te jàpp nañ ne lu ëpp loolu mën naa dugg ensuite état daf ñu jox nañu commune ngeen ba pare état daan ñu fayal ASCOM daan ñu fayal adjoint au maire ren mu ñëw mu ne du ma fay ASCOM du ma fay adjoint au maire du ma fay chauffeur yéen a koy fayal seen bopp. Ah, loolu masse salariale boo ko xoolee ëpp na euh, seen euh, seen budget pour ban pourcentage mooy dem fonctionnement. boo xoolee budget Darou Mousty li nit ñu bari comprendre ci budget collectivité local collectivité local dafa am fu fonds investissement di jóge ak fu fonds de fonctionnement di jóge boo xoolee rubrique fonctionnement da nga ci gis lu bari loo xam ne investissement la jëm maintenant on boo xam 90 millions mooy fonctionnement 90 millions 60 millions mooy euh, investissement maintenant sur les 90 millions lu ma 35 millions investissement la parce que registre yi ma lay wax fan la jëm ci ci kii bi éclairage public bi ma lay wax lu mat 14 millions ñu ngi ko fa inscrire ci ci ci ci éclairage public. donc mooy dem si investi mooy dem si fonctionnement soixante millions investissement. soixante millions mais investissement investissement euh, loi bi daf lay wax fan la ressource investissement di jóge. aywa daf naan la ressource investissement ci fonds de concours lay jóge wala bu fekkee ne am ngeen fourrière ngeen jaay ko foofu ngeen koy jóge wala ab don wala lu mel noonu foofu la foofu la investissement di jóge mais may ma ma ma ma ma jeexal rek li am solo aussi ci budget mooy ne prévision la. ñun wax naa la sànq ne bokkuñoo ñi nga xam état bi moo leen di jox li ñuy doxee boo demee conseil départemental amul ressource état moo naan ko am 100 millions la am liggéeyal 100 ñun nag ñun dañ naan état ñaar fukki millions la ñu mën a may kon nag nañ xool ci suñ bopp fan lañ mën a jëlee xaalis boo xam dañ mën def dara par exemple daaw amoon nañ fi ay yoo xam dañu doon jox 36 millions bu ñu amee 4 millions mais amuñu woon 4 millions dañu pour mën pour mën a am millions mais ren bi ñu amaatee partenaire bal ma terminé foofu lay jeexale ren bi amee partenaire boo xam dafa ñëw ne ñu danaa leen jox 36 millions bu ngeen amee 4 millions sur fonds propre ñu ko kenn ci lañ jël aywa joxe suñ kon jàmbaar ngeen euh, jaraw lak mairie Darou Mouhty jotaay Sénégal ca kanam tey si Darou Mouhty ñi ngi nii ànd si ak euh, commandant bi nga xam ne moom moo fi nekkoon di jiite brigade bu gendarmerie Euh, muy Waagaan Fay Waagaan Fay di la nuyu la daal la ziar. waaw Tounkara jërëjëf ma ma ngi leen nuyu di nuyu monsieur le maire de daal Moussi di wax nag ne su fekkee ne dañuy wax dans le domaine de la sécurité mm-hmm. d'abord damay damay wax sama bopp ba pare 2001 euh, laa dem à la retraite ça fait 15 ans maintenant que je suis à la retraite mais ça fe 15 ans que chaque jour ma gis luy gën a delloo la sécurité ci suñu réew mi delloo ginnaaw bu koy gën a delloo gannaaw. kon sécurité si réew mi jàppandiwul si yow. je parle je parle man li may wax lu ma lu ma leer la. waaw ah, yow professionnel de la sécurité. voilà donc soo gisee ma ne sécurité bi day gën di delloo gannaaw c' parce que euh, euh, monsieur le maire dana ma baal politique yi politiciens yi ñooy réfléchir à la par à la place des techniciens. est ce une grosse erreur. loolu njaaxum la. dañu war a bay techniciens yi ñu réfléchir jox politiciens yi ñu réaliser. est ce que. waaye nag politicien bi du ñëw ne man kat euh, euh, Belgique wala Hollande wala benn réew may na ma cent Land Rover wala cent euh, cent pick-up naa seet fu ma koy dugal mu ñëw ne jox na jox naa ko mari wala jox naa ko police non nañ leen laaj ñoom ñëpp ku ci nekk lii sa soxla nga def ko ñu réaliser leen ko mu ñëw. politiciens yi kay keroog rek euh, mon commandant. maa ngi koy wax ministre de l' intérieur bi muy commencé naan ay burqa problème de sécurité nationale la ma ni moom xamul dara si sécurité du professionnel de la sécurité suñu bugee régler affaire sécurité dañuy bàyyi professionnels yi politiciens yi ñu noppi ñu bàyyi leen ñu liggéey ñii politique ñii sécurité euh, si secret ak discrétion indi ay résultat waaw mais léegi léegi léegi man je parle particulièrement du cas de Darmoussi aywa parce que jaar mu si dama fay jaar ñaari yoon dama fay njëkk a jaar comme adjoint def fi presque trois ans ma dem je suis revenu comme commandant de brigade pendant cinq ans 2001 dem retraite dama wax ne arrondissement Darou Moussi normalement waroon nañ fee am yeneen brigade de gendarmerie bu dul Darou Moussi rek. Hmm. ñaata brigade. parce que arrondissement bi sept commune moom la commandant de brigade bi coiffé. dafa bëri de. sept pour pas pas plus de si si kii. ci euh, ci eh, moom ak élément am bu ko nekkee avec ça mën nañu am sécurité. war a def renseignement war a def ay bulletins. war du loolu sax. Ah. d' abord d' abord pantière bi dañ ko war a daggate. ay secteurs. noo yéen war na am brigade am. mais est ce ni yow sax nga xam màcc nga dem retraite est ce que di nga bind ay léeg-léeg. dëkk. di leen bind di leen. di leen bind di leen ko wax. tontu. ah lu man lu man man man. mais dinañ lay tontu. déedéet duñ may tontu sur place bu dee waxante sur place mais mosoo bind kilifa yi wax leen sa xalaat si nan la ñuy def ba sécurité bi. gën a jàpp pratiquement ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon nekk ci commandement bi ñoom ñëpp ils me connaissent de damay jël sa téléphone wala wax la ne leen il manque telle chose. dans telle localité mais doo si am benn kii. am retour non non ma am lu ma ci raxal. non doo si am retour laa wax. ñoom du am retour amul feedback. amul feedback euh, loolu nag euh, lu mel ni gendarmerie ñoom euh, war nañ si gën a góorgóorlu. bu waaw ci la ci laa jëm. dama bëgg a wax ne communauté rurale bu ne bu amoon une brigade de gendarmerie ak ñaari otoom un commandant brigade avec dix éléments au moins dana mën a garantie communauté rurale. a ah, loolu nag mënul ne nag ñoom amuñu moyen. gendarmerie kay déedéet waxuma gendarmerie mais je parle de l' état moyen gendarmerie am. gendarmerie du tabax moyen dañ ko koy jox. waaw loolu laay wax na ko laaj. xoolal livre colonel Ndaw bi. waaw man liir naa ko. waaw nee na brigade gendarmerie pour lan du ñu def patrouille. Mhm. parce que dotation essence bi. c' deux litres par voiture par jour. xam nga loolu mënul Ndaw gendarmerie la ma fekk. bi muy ñëw ak ay galon euh, euh, euh, auxiliaire élève officier gendarmerie la ma fekk li mu wax ci livre bi yëpp am na lu ci nakk loo xam ne peut-être c'est un combat personnel am na ci loo xam ne aussi réalité la waaw loolu mu wax yow bi yow jiite nga brigade. man jiite naa est-ce que problème mu essence boo xam ne dafa deux litres par voiture par jour. déedéet moom jamono ja muy wax. waaw jamono jooju c'était possible. yow sa jamono parce que il faut pas considérer parce que boobu temps d'abord le carburant ne coûtait pas cher léegi carburant bi li muy jar ak ba mu doon jar bu njëkk bu bokkul. yow temps yi nga nekkee di. jiite man ma je suis parti en 2001 nee naa la à partir de 94 92 euh, j'ai commencé à être commandant de brigade. léegi euh, sa sa oto yi daawoon nañu am. essence bu doy sama oto musta manqué carburant dinaa la wax lu tax. Hmm. parce que le maire la mais il daf ci war a dugal loxoom. waaw le président de la commune je veux dire le maire aujourd'hui mais bu njëkk ba ñun amuñu woon maire. tous les présidents de communauté rural moi je les obligé. à participer à la sécurité de la de de la. Euh, mais kon loolu loolu mooy. boo yemoon rek si budget wu gendarmerie. kon du ma doy. Ah. parce que mission bi ñu ma. waaw mais moom loolu xam nga tey euh, colonel buy wax. mënul hmm. wax dugal si. participation communauté rural li mu mën a wax rek mooy hmm. moom li mu yor. budget bi nga xam ni moom lañ ko alloué pour essence bi. waaw mu ne essence bi doyul. waaw c' est deux litres par voiture par jour. waaw loolu analyse am la mais man du sama analyse man parce que man je partais en tournée. damay jóge jalakoto je ne sais pas si vous connaissez Dialakoto. damay jóge Dialakoto ba Soreto Saabu Siré je mettais un un un fût de 200 litres de super ci ci oto bi. foo jëlee ci Landerode bi. gendarmerie ko doon jox. bon euh, léegi les changé. voilà léegi euh, waxtu baa ñuy kenn ban ban ban dénkaane nga bëggoon joxe moom. li ma bëgg a dénkaane mooy. Hmm. bu ñu jàpp ne arrondissement Darou Mousti benn brigade ñaari brigade la fi parce que dañuy compter waale bel bu ñu fàtte ne belal dagg nañ ko bu yàgg bu jox ko Touba. Touba bokk. daaru arrondissement Daarum si la nekkoon. ñu tag ko pour léegi léegi Touba la bokk. Touba la bokk léegi benn brigade moo fi ne te juróom-ñaari arrondissement moo juróom-ñaari euh, commune rurale moo fi juróom-ñaari commune yow bu doon sa sago ñaata euh, sa xalaat mooy. chaque brigade euh, chaque. communauté communauté rurale. chaque commune am am au moins une brigade gendarmerie waxuma yow un poste de gendarmerie. brigade carrément. il faut pas laver la figure aux aux autorités nañ leen jox nit ñi aussi su su fo su sécurité bi faible y a la faute de la population. est-ce que loolu mon général mos nga ko bind. Euh, yow jox ko de visus. non wax ma de est que mës nga ko bind wax ko sa xalaat boobu. mais dañu ne fii réunion. loolu non wax ma réunion a gisee est que mës nga ko bind. loolu foo la jëm officiellement loolu laa lay wax. waaw Kébémer gii le général qui était là Ablaye Fall. bi taxawaa ji bind livre bi. Mhm. il nous a convoqué en réunion ici à à Kébémer. la ma ko wax moom moo tax mu yóbbu ma mission Côte d'Ivoire. Hmm. waaw pour ay insuffisance je le dis et fort. boobu daf la sanctionné dama lii moo tax gendarmerie doxul. mu sanctionné la. non non non m'a pas sanctionné au contraire il m'a récompensé. Hmm. il m'a envoyé en mission à l'ONU. waaw euh, léegi li ma bëgg a wax mooy yow. waaw est-ce que moom général. yow fi mu tol nii en tant que retraité. nga xam da nga am recul. waaw di gis bu baax. est-ce que bind nga général bi fi ne. ne ko lii laa xalaat ne que moom moo doy di si sécurité bi te lii lañ war a def pour sécurité bi jàppandi. est-ce que def nga loolu defuma loolu tamit sas nañ la ko. d'accord mën naa loolu. aywa jeexalal. mën naa loolu li ma bëggoon daal mooy. Hmm. na population bi dëkk ci arrondissement bi. il y a trop vol. mais il y pas la la la main des population dëgg la nit ki da ngay dëkk ci dëkk brigade bi xëy di jant ba jant bi soo di la jéem a di la jéem a protéger te yow boo gisee Tunkara muy def lu dul yoon nga ne pat. mais parce que population yi kenn yaru leen si loolu. très bien léegi nag loolu nag ay campagne et si ensuite Darou Moussi mérité na une maison de justice. loolu dëgg la mais tey euh, li nga wax dafa am solo moo commandant mooy. population yi nit ñi dañ leen war a yar si ñu bokk si sécurité. te loolu ñun defuñu ko kan moo war a def loolu. loolu loolu loolu normalement gendarmerie war na ko mën a def mais du du ko def de manière directe maanaam dajale nit ñi benn place di wax ak ñoom. mais day jëf benn cas def ko kaa d'école. dëgg la ñëpp gisandoo ko. aywa moo commandant li mu wax euh, am na solo lool. mbokk yi tey suñ jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi ko amal fii ci Daaru Moxti Daaru Moxti di dëkku euh, borom daaru di maam Thierno Birahim moom mi nga xam ni sëñ Tuubaa bi mu demee géej. Euh, moom la dénkoon yu bëri ba ay doomam ak njaboot njabootam euh, sëñ bi moom la ko dénkoon euh, di ziar Baye Cheikh Khady Baye Cheikh Khady yàlla na ko suñu borom dolli leer dolli ko wér mu yàgg fii di ñu gunge di ñaanal ñu ngi si ànd tey ak Cheikh Gueye Cheikh Gueye moom baykat la ànd si tamit ak Modou Awa Balla Mbacké moom dafa bokk si fédération boo xam ne ñoom dañuy yëngatu si diine sëñ Modou di la nuyu di la dalal di la ziar. waaw Tunkara ñu ngi lay nuyu. Euh, sëñ Modou leeral ñu li ngay yëngu lu mu doon. waaw man maa ngi ñu ngi yëngatu ci fédération Islaamu Daarayni. fédération loolu lu mu doon. moo lëkkale mboolem daayira maam Thierno Biraye mi nekk ci Sénégal gi yëpp. daayira yi ñaata lañ. daayira yi fi ñu toll nañ ci fukki daayira ak ñaar yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Sénégal. fukki daayira ak ñaar yooyu ñaat nit a si bokk. waaw actuellement nii yaakaar naa membre yi war nañu dem ci junni ak nangam. ci ñi nga xamante ne nangam boobu ñaata la. waaw dama teewlu chiffre bi carrément mais. ah sëñ bi nag yow boo jiitee fédération nag da nga war a xam ñaata lañ. waaw xam nga boo ñaata góor la ñaata jigéen ñoo nekk ci fédération bi. jiite ma sëñ Mahamadan Mbacke moom moom mooy jëwriñ ji. mooy jëwriñ ji waaye mais yow en tant que président. Hmm. jëwriñ ji daf la war a jox xabaar yi nga xam exactement ñaata lañ. loolu moom lu war la loolu léegi ñaata góor ak ñaata jigéen ñoo bokk ci daayira yi. loolu ba tey daanaka duñ la mën a jox dëgg-dëgg chiffre bi ndax. Hmm. ci fi ñu waxtu fekk la waxtaan fi ñu fekk mënu mënu xamoo ñaata góor ñaata jigéen. Euh, ndax euh, daayira bi ñoom fan lañ ne ci biir am na ñu nekk bitim réew wala yëpp rek si biir réew mi lañ ne. waaw xam nga fédération njabootu ni ñu doxee. waaw daanaka réew mu ci nekk dafa am fédération ndax bu dee Italie ne am na fédération. ñooñu ñëpp dañoo bokk fédération bii nag biir Sénégal la nekk. ah bii bu Sénégal rek la lëkkale Darou Mousty ak li wër. yéen si lan ngeen yëngu ñun ci li yëngu mooy ci liggéeyal maam Thierno Birahim lépp lu nga xamante ne dafay ndigal jóge ci sëñ ci xaadi rek loolu mooy suñu ndigal loolu la ñuy xaar lépp lu nga xamante ni sëñ bi bëgg na ko bu ko sante daayira bi daayira bi ci loolu lay jóg di ci dox di ci wax kon tey yéen daayira bi bu ñu ne euh, problème mu ndox ak problème mu euh, fay ndox meek yooyu na ngeen ko lijjanti ngeen dox si waat waaw a lijjanti duñ a a a def mooy daayira bi naa ñun daayira bu kenn ku nekk jàppe na war a fay ndox boo fayee ndox rek kon sëñ bi du wax ak kenn fayal ndox kon yaakaar naa mooy sensibilisation bi njëkk beneen digal bu mu ñu teg nag bu dee ci wàllu récolte xaalis wala sensibiliser nit ñi wala war a dem yóbbu fenn ndox wala bu doon gaslu tiwo bu sante daayira bi na gas leen tiwo yi ñu gasal ko tiwo yi yow tey si wàllum réalisation lan ban réalisation bu gën a mag nga ñu mën a wax bu daayira bi def daayira bi ñu ngi ko sos ci 2002 réalisation bi muy def fii ni nii ñu ngi waajal gàmm gàmm gi lépp luy organisation bi daayira bi moo koy def non yi si 2002 ba léegi lan ban réalisation nga ñu mën a wax ci laa nekk mooy di organiser gàmm maanaam gàmm Daaru Musti gi daayira moo koy organiser bokk na ci itam lu mel ne màggal Daaru Musti si am na set satal boo xam ne dañ koy def ngir waajale ko màggal gi dajale daanaka mën nañ Sénégal gi yëpp Touba Darou Mouhty ñëpp daje ci dëkk bi ñu setal dëkk ba mu set yaakaar naa léegi nii dem gis yëpp dañ ah, ah, ci dëkk bi hmm. daayira bi rek li ci ëpp ay ndaw la naa ne 90 pour cent ah, ñaata la moyenne d'âge mooy maanaam daal boo doon euh, tënk di xayma nit ñi seen at ñaata lay doon. waaw mën naa daal fi ñu ci ëpp fanweeri at ak juróom. jàpp fanweeri at ci lañ toll. Euh, ban ban nga bëgg leeral yow. waaw dénkaane bi ñu bëgg a mooy Darou mussi ñun day dëkk bu nga xamante ni dañ ko bëgg te fonk te ñu gis ne xëy na comme daayira bi ñu am li ñuy yëngutu ci Darou Moussi mais bari na lu des ci dëkk bi te xëy na mu des ci wàllu état bi war nañu ko jàppale jàppale ko daayira bi mais jàppale ko Darou Moussi ndax duñu wax ci ñu wax ci turu ndax Daaru Musi ñëpp la bokk jaboote mooy tey soo xoolee Daaru Musi fii ñu toog di wax mën naan loo fi gis rek sëriñ bi moo ko fi defal boppam mais bari na ci comme ni ko waxee ci laaj yi lu nga xamante ne dafa waroon état bi tey ci dëkk bi tey soo xoolee Daaru Musi wax nañ ko léegi population fi mu toll hmm. te mën naa ni dañuy tàmbalee centre santé bu Daaru Musi tey boo demoon damb-damb képp bu la dalee Touba lañ lay yóbbu pour op fajala ah. am lu ma ci 72 toll ci ay sept communes. loolu daayira bi dox ñu lijjanti. ñu ci mën a dox xëy am nañ ay partenariat lu mel ne district sanitaire nga xam suñu rôle mooy assainissement bi di ko setal. ak di fa def ay sensibilisation ci nit ñi naka la ñuy fexe xeex jàngoro yi mais xam nga daayira mënut a waral da ngay tabax. na mën nañu am partenariat pour witi ko ci uh-huh. gis nañ ne dafa manque infrastructure lu bëree bëri. Uh-huh. xëy na li nga xam ne mi ngi fi jamonoy colonial ba léegi booy xool ci dëkk bi li fi sëriñ bi deful rek soppiku fi ci dëkk bu toll ne Daaru Musi loolu itam ba tey bokk na ci li xanaa président invité wu leen ko pour mu ñëw si daayira si mu ñëw Daaru Musi parce que président boobu léegi ñun bind nañ sax président bind ay ndawam mais sax duñu am répondre pour lépp lu xam ne day doléance Daaru ñu war ko def ci dëkk président est-ce que invité ngeen ko pour mu ñëw daa Daaru Musi mais xaar ñu ko invité ndax bi ah. muy bëgg réew mi kenn invité ko moo doxal boppam ñëw ci dëkk bi waaw xañ na loolu nag moom duñu xam ndax bi muy bëgg dëkk bi kenn invité ko moo doxal boppam xam daaru musi mu ñëw comme bi mu amee tam wër taxaar suñu ko invité mu ñëw daaru musi ah, mais léegi yéen euh, loolu président yéen bindu leen ko invité wu leen ko te ñëwut waaw loolu moom moom moom daaru musi daa amul noonu solo si mais président wër taxaar ndax am na ay ndaw yu mu fi tànn teg leen ci dëkk bi ndaw yi lu ñu ko fi jariñ ci dëkk bi ñoo ay bëtam di noppam kon ndaw yooyu suñu déggee jafe-jafe dëkk bi war nañ a rendre compte hmm. am na ay agence de secret yu ne ci dëkk hmm. naa loolu xam ne doléance Darou Moussi war na ko yëg kon daal président yéen yaa baax na mais ziar bi jëf ji ko am solo ñun jëf ji soxla mooy mu xam Darou Moussi mooy fan Darou Moussi fi mu toll mais bu ko xamee te defu ko kon jay xamu ko li ñu soxla ah. mooy Daaru Musi li mu soxla ndax li ñu ko waxee ni ci problème mu ndox meeg yëpp sëriñ bi mi ngi ci defal boppam di ko def mais dafa am loo xam ne nit sëriñ bi mën na ko mën na koo def la mais mais yow tamit sëñ Modou yow ah. yëg xam nga ni président yooyu yëpp xam na ko ndax mm-hmm. wax nga ko benn dafa am yi ndaw ñaar màggal gi mm-hmm. saa su ne mm-hmm. président day yebal yi ndaw ndaw yooyu suñu demee dinañ ko maanaam joxi xabaar kon président li xew li li am kay xam na ko lu tax boobu moom ba muy campagne mu dikk fi te ba mu toogee ba léegi dikku fi yéen loolu tamit est-ce que warul soxlawul ngeen dox ba foofu ah man damaa jàpp ne waaw maanaam euh, laggal dëkk si ñëw ziar xam nga loolu moom Tounkara hmm. président même màggal Darou Mousty gi ngay wax damay gis ne bala jëf ci dëkk bi sax asra da ngay dégg ñu wax ci rajo bi wala mu dem ba nga xamante ne xëy na du ma amul benn màggal wax na ngay jekk-jekk sax li ñuy def Darou Mousty gépp ñu mën koo def rek ne def nañ Darou Mousty la ñu a def lépp te déggoo wax ci rajo bi wala déggoo benn réaction am moo ne daal balay jëf day xaar faaw pression tege ci kawam wala ñu wax loolu dafa amul njëriñ waaw ah, loolu loolu loolu dafa xaw doy waar ndax euh, Darou Mousty euh, dëkk la xam ne dëgg-dëgg buñ ko saak xam nga nag sëñ Modou ñun Sénégal dañoo fonkul suñu bopp xam nga ñàkk fonk sa bopp moom mooy dëkk bu mel ni daaru daaru musi yow nga sàggane ko ñun tey maam Thierno kenn jàngale ko suñu école yi de mhm. xale yi demal dox si xale yi nga laaj leen kan mooy maam Thierno Birahim xamuñu ko yaa ngi dégg tey Daaru Musti boo fi ñëwee ñu naan la waa problème mu ndox mi fii problème mu courant bi fii village bi nangam amuñu infrastructure sàngam loolu mooy ñun fonk fonkuñu suñu histoire fonkuñu suñu démb fonkuñu suñuy nit parce que boo fon boo fonkoon tey maam Thierno xam nga comme dëkkam tey lu mu bon ba amul dëkk bu koy ñee si àdduna mais tey ñun euh, yooyu yu ñu sàggane la aywa. Euh, waaw sëñ Modou looy waxtu bi jàpp waaw xam nga li may jeexal tam mooy comme li wax ni Darou Moussi damay dégg lu bëri dañuy tudd naan dëkki diine yi wala dégg naa si programme président mu ne dañuy defaraat dëkki diine yi Daaru Musi ah, ngay dégg dëkk buñ mën a wax ne ginnaaw Touba Daaru Musi buñ dëkk buñ sanc ngir diine dëkk boo fi gis buñ ko sancee xëy na borom dafaa demoon dafa daaraam di fa nekk ba dëkk ba ñëw mu am mais dëkk ba xam nañu koo sanc diine tax koo jóg daaru musi képp nga koy dégg ah, kon tey musuma dégg fenn fu ne dañuy musi ko yeggale sama message li ma koy wax mooy ñun waa daaru musi suñu bopp mooy ñun ñi nga xam ñoo dëkk daaru musi rawatina ñun ndaw ñi a xam ñu gëm suñu bopp xool li nga xamante ni moom la ñu war def ci dëkk bi suñu bopp ñu def ko leneen li état war a def nag su ko defee su ko deful moom xam nañ fañ ko daan jaar te itam ginnaaw ku ñëw ñoo lay jox soo demee nax ñu mais ñu yeewu xam suñu bopp boo liggéey ku ñëw taxaw di wax hmm. ñu xam kii ñuy nax ak ki ñuy jariñoo hmm. ndax daaru musi mënuñu nekk ku bëgg ñëw soo waxee ba mu ne xaaw rek dem sa nga teg fàtte de daaru musi loolu dañu bëgg mu jeex daaru musi te ñun ndaw ñi lañ bëgg ñu xeex loolu mu jóge ci yi am jom <laughs> aywa <laughs> euh, doomi daaru musi nga te baykat nga yow looy bay aùzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina seytaani rajiim rabbi aùzu bika min hamazaati sayaatiin wa aùzu bika rabbi an yahduruun Sëriñ Tunkara maa ngi bay li nga xamante ni ñun waa côté bi moom lañ baaxoo bay muy gerte ñebbe bisaab ak dugub ak dugub mm-hmm. ban jàngat nga bëggoon def tey mbayu daaru ñëpp xam nañ ni daaru moom dëkku mbay la ndax maam Thierno Euh, ñëpp xam nañ ni dem na ba tubaab bi bu soxlawoon pepp sax si moom lay ñëw ndax euh, mbayu daaru jëm na kanam wala daa dellu ginnaaw si yow. Euh, mbayu daaru jëm na kanam lool ndax boo xoolee ñu baree bari ñoo xamante ni daaru lañ dëkk ci mbay rek la ñuy dund ak sàmm ak ay góor góorgóorlu bu baax a baax. jënd ka jaay ak jënd ka jaay. waaye daaru moom tey amul euh, amul ay usine amul amul yooyu def fii amul ay usine hmm. mais nag ay nit ñoo xamante ni borom daaru daf leen a yar ci liggéey jaamu yàlla ak ngor. aywa euh, Cheikh yow yan leeral nga bëggoon indi tey. leeral yi ma bëggoon a indi mooy dama bëgg ndawi Sénégal yëpp pour bëgg Sénégal jëm ca kanam. Hmm. ñu def comme man ni ma def. mooy. mooy ndaw loo xamante ni 32 ans nga am. di bay di ñoral ay tonnes yu bari. ñaata tonnes. bu dee dugub dinaa ñoral naa quatre tonnes wala six tonnes. Hmm, gerte waaw gerte après ay trois tonnes. ñebe. ñebe une tonne. Euh, bisaab. bisaab xoolee guñu ko ba mu daj mais suñ ko xoolee ba mu daj dinaa xam. exactement ah sa yooyu de moom boo ko jaayee de mais bo jaayee euh, ña ton tonne ñaata tonne gerte ñetti tonne gerte nga am. waaw ñetti tonne gerte. waaw ñetti tonne gerte de moom loolu néew na de ndax boo boo ko jaayee. Mhm. si euh, kilo deux cent franc. loolu six cent mille la de. loolu six cent mille. dara du dara. mais li ma bëgg nga xamee ne moom laa koy wax mooy góorgóorlu bañ a xaar kenn. ah loolu de moom euh, ànd nañ si mais euh, euh, bañ a bañ a xaar bañ xaar comme fi ma jëm mooy bañ a xaar kenn mooy man su fekkee jiw dafa day ñëw day dugg ci dëkk bi dinaa def comme li nga xamante ni nit ñi bëgg jiw ni ñuy def dinaa ko def mais du ma am. Hmm. engrais tamit su duggee ci dëkk bi ñu ni baykat yi Daaru si wala li wër Daaru mu si suba ñëw leen jënd engrais. bu subaa ñu ñëw dinañ fekk ñu jaay ko borom xaalis yi borom xaalis yi dem jaayaat ko ñeneen. est-ce que te ñun sax ñun ñi nga xamante ni président dafa wax ni ci mbay mi la yaakaare Sénégal jëm kanam ñuy ñuy góorgóorlu te jëmuñu jéemuñoo lijjanti sax ay ay ay ndimbalam wala ay sur ressources yoo xam ne ci ñun la ci ñun la jëm si mais toujours buñ demee pour engrais dinañ fekk ñu jaay ko ba mu jeex kon ñun béykat yi gisuñu dara loo xamante ni état moo ñu koy taxaw. Hmm. ba euh, noppi joxe ay joxe joxe ni. état bi ñiy jaay gerte nañ ma ko jaay. Hmm. waaw ñun état bi bu ñu amoon gerte ba di ko jaay benn dërëmit dañuy dem jaayi ko ci àll ba mais duñ ko jaay état surtout ñun waa daaru Moussi. Hmm. ndax ñun waa daaru Moussi état teguñu fenn. ah yéen xanaa da ngeen mere état bi. lool ak jeunes yeeg jigéen ñi góor ñëpp mere nañ état bi. ndax premier tour ñëw na fi. Hmm. ziar suñ kilifay diine yëpp dem yaari Dakar fekk fa Baye Cheikh Khady ànd ak sëñ baax ak Ibrahima Sall. ziar ko nuyu ko te foofa ruqe na lool. Mhm. mais depuis ba mu gañee réew mi ak léegi gis nañ muy wër réew mépp mais boolewu ci Daaru mussi waaw daa dikkagul xanaa. boolewu ci Daaru Musi dafa dikkul. non dikkagul te gis nañ tamit. yéen invité wu leen ko. Ah, gis nañ tamit. invité ngeen ko. ba muy wut réew mi invité wuñ ko. <laughs> mais gis nañ ne Daaru mussi am na lu ñu am. <laughs> Euh. loo xamante ni lu rëy la. te ñun waa Daaru Musi xam nañ ko bu baax a baax. waa léegi euh, Cheikh. président dañ ko war a invité président. ñu ngi koy invité soxna Ndike nag la ñu bëgg su su su président dina la toggal picc yaa ngi dégg toggal la pitax yaa ngi dégg euh, njoñol la ab mbote. yaa ngi coppi di di la wax soxna Ndike nga xam dara du manqué. Hmm. président xam nga yooyu. Euh, moom amoon na ko solo mais mais Tunkara non Cheikh defal naa li ma lay wax. nit léeg-léeg da ngay ut ay pexe. Hmm. président boobu ba léegi ñëwut léegi dañu ut pexe pour mu ñëw. mais Tunkara. Hmm. fii Darou Moussi boo xoolee au début wax nga ko. mooy dëkk bi nga xamante ni après Louga mooy dëkk bi fi ëpp raison bi tamit màggal daaru moo ci gën a xumb ginnaaw Touba tamit daaru musi la ñu wax ñun nag ñu jàpp ni président ak ku mën a doon boo xoolee daaru musi ñun ñëpp ñu maase xool la soo dumoyoo daaru musi ñu maase dumoyu la. waaw waaw moom dumoyugul léegi nag dañuy jàpp non dumoy dumoyu nañu ndax bari na loo xamante ni lu ci ne waroon na koo tax a tax a jaral mu jóg te jógut. comme lan benn. lan benn. Ah. Serigne Cheikh Khady mii fi ne ay. ku mel ni Serigne Moustapha May nga xam ne sëtu sëriñ Touba la sëtu borom daaru musi la waroon na koo jaral jóg. te gis na bi mu làqoo bi mu làqoo jaaru fi. Hmm? ku mel ni ku mel ni ku mel ni Serigne Mamor Koso jaaru fi. ah président de bi ñoom Doudou Ndiaye mel ni ku mel ni ku mel ni Serigne Moustapha Ndioba. Hmm. Serigne Fallou Asta Dieye Serigne Koso Ganaar. Hmm. ak soxna Maam Boussa. nga ak Serigne Khadim nga xay ci doomu Serigne Cheikh Khadi la magi Serigne Abdou Mbacké mii la président jaaru fi ba tey. président ku mun jaale la nag. gis nañ ko mu mu jaale. mais fi nga xamante fay ñoom ñoom Doudou Ndiaye Coumba Rose ñoom euh, Mali dafay. mais day day kon kon day day jaale kon day jaale ñi nga xamante ni ñoo ko jarul ñi ko jar mu teg leen fee. ah déedéet ñëpp jar jaale la. ah mais ñun jaa jaaw déedéet mais ñun ñun ko jaral ah. ñun ñi nga xamante ni. Ah, ñun dañu la Daaru Musi lañ xool. waaw d'accord su ñëwee Daaru Musi. non non Cheikh boobu nag dama bëgg nag boobu tam nga rectifier ko. mooy ah. ñëpp jar a jaale. gaa président jaale ñoom ñoom Vieux Sing Fay. mais mënut a mënut a jaale mënut a jaale ñu gën ñii ci réew mi. non waxuma waxuma ni jaale na leen gën. dama rek ñii mu jaale ñëpp euh, ñooñu ñëpp ñu jar a jaale lañ ndax képp koo xam ni bakkan nga boo jar ngaa jaale léegi nag ñii nag ñu am solo lañ ñoo xam tamit ku leen jaalewul tamit ah loolu tamit ñu ngi koy ñu ngi koy euh, métti lu ko mais euh, lenn moom am na mhm. mooy président euh, fu mel ni Daaru Muxti waruñu dégg ne que président sàggane na ko te yéen loolu moo leen metti te ñu nit metti nañu ne président léegi Cheikh. yow tamit dem nga déggwul de nee naa la mbir mi léeg-léeg koy utal yoon président nañ ko invité ay picc. mais ay pitax. mais Tunkara gis nga moo koy wax nga may dagg. Tunkara fu laal ma de Tounkara président ah, président bi nga xamante ni day wut réew mi boobu invité wuñ ko bi mu demee ba gagné réew mi dafa toog fi mu toog rek fekk Daaru Musi defe na ni luñ ko dara mais muy 2017 wala 2019 ñoo ngi toog di ko xaar am nañ ay carte am nañ laneen loo xamante ni. Eh, bul menacé président nag yow yow. wasalaamualeykum wa rahmatulah. <laughs> waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu. Euh, waa waa Daaru Musi yëpp euh, vraiment di leen euh, di leen delloo njukkal delloo Euh, ñoom maam Cheikh Anta Mbacke ak euh, ñoom sëñ Ousmane Mbacke ñoom euh, Cheikh Abdoulaye Mbacke ñoom sëñ Mahmadane Mbacke ak ñoom sëñ Modou ñoom soxna Khady Dieng ñoom soxna maam Faati Mbacke ñoo ñëpp vraiment delloo leen njukkal delloo njukkal suñu ay technicien ñoom Seydou Sow ak Mohamed Ndiaye ak Tafa Sow ñooñu laa àndal fii ci Daaru Muxti vraiment Euh, Ibrahima Sall moom it euh, delloo ko njukkal ndax euh, waar wii mu bay fii ci Daaru Muxti waar wu am solo la ndax ku dem fii si cimetière yi si sëkk yi xool vraiment ni mu ko ni mu ko waar wam fa bay loolu dañ ko si war a delloo njukkal ndax bëri na ay dëkk fii ci réew mi soo demee foofu boo xoolee seeni armeer da leen di xeeb ndax armeer yi kenn faalewu leen dëgg-dëgg euh, fii armeel yi euh, bay na si waar euh, sama wóllëre sëñ abdu vraiment delloo ko njukkal sëñ Abdou Mbacke ndax moom moom laa jokkool si lii ba tey suñu borom moom mu ne ma dem génn ndakaaru di def jotaay Sénégal ca kanam fi jiitu Daaru Muxti lay nekk loolu ñu kolorante ko maak moom ba dox si waar ba tey euh, mu sotti nii euh, delloo njukkal soxna Ndike mbake soxna Ndike vraiment mu ñu ko mu ñu wax mukk euh, bàyyi ko ndax moom yaatu bi nga bi mu yaatu rek moom moo tax vraiment ñu ñeme fa sama féetee di soxna Oumy mbake ak ñoom Ndike say ñoo ñëpp ziar ndax foofu boo fa demee dëgg-dëgg kër sëñ Abdou dara manqué wu fa yéen ñi nga xam ne nag yaa ngeen ñuy bàyyi xel si fii ci Daaru Muxti ak. waa Daaru Muxti yi nekk si bitim réew yëpp waa euh, Amérique ñoo ñëpp ñoo Alioune Ba delloo njukkal dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam